élection yi date biñ ko jàpp te droit dal di koy wax ak loi moom la ñu koy voté muy le 25 février atum 2024 bii ñu dëgmal mën nañu ne sureetul ay semaine dal di des ci élection yi ñu bëggoon a wax ne dañu koy dal di fomm conseil constitutionnel dal di jox dëgg peuple sénégalais dal di wax ne yow mii di Macky Sall nekk président jamono ji file ci mu Sénégal du ñu nangu mukk ñuy salfaañi àq ak yelleefu droit wala sax ñuy sal salfaañi li nga xam ne mooy àq ak yelleef bu peuple sénégalais du ñu nangu mukk ngay toxal élection yi droit moo ne mënatoo yokk sa mandat mënoo wàññi sa mandat élection dara mënuñ ko toxal dara rek moo mën a tax ñu toxal élection yi muy lu rëy rëy dal di am ci Sénégal te nag gis nañu Sénégal gii li fi am dafa nekk yoon kon nag daañu doxal loi ak droit yow mii di président Macky Sall amoo droit dal di toxal élection yi la le 25 février nañu jëli carte yi ngir jële fi nguur gu bon gi fi ne dañu lor dëkk ci di ñu jaay doole waa Buus Média TV di ànd di sant lool waa conseil constitutionnel